salaam rasulillah sayyiduna wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman jërëjëfe cheikhul xadim bokk téléspectateur télévision Mafatihul Bichri noo ngi leen di nuyu di leen siyaara fi ñu leen baaxoo nuyoo baaxoo leen fi siyaara muy seen télévision Mafatihul Bichri am mbégte bu baax te sunu siyaar ak sunu mbég moomu noo ngi ciy jiital a Cheikh Sidil Mokhtar xalifu général kullu murid yal na fi yàgg lool tànn bi wér yëkkatiwaat wàccuwaay di ko jox mu joxal ñu ko mbooleem fu taalub jàngu ne ndax moom yàlla bëgg yonent ko ba nekk ca muy bennale kon mbooleem fu nu war a jox wàccuwaay yëkkati nañ wàccuwaay wa teg ko ci loxoom ngir mu jotalal ñu ko di ko ñaanal saa borom dara yàlla na guddal aw fanam boobu naa lay yeggale sa bopp moom njabootu Cheikhul Khadim gépp eh, di siyaarewaat bu baax mbokk téléspectateurs yi ci weer yu ñu nekk eh, di weeru safar eh, te bu ñu ci duggee rek xol ya xel yépp daw daje ci jënd jëm muy Cheikh Ahmad Bamba Khadimul Moustapha jàmbaar jooju nga xam ni moo taxawal yoon wi di yoonu murit waaye lëggéey lëggéey bu rëy boo xamee ni kenn dootu ko fàtte ba ilaa yow mi diini waaye tamit liggéey boobu moo saba boobu mu ne mbooleem lu mu bëggoon saa borom fayale ko ko ci weeru safar ci fukki fan ak juróom-ñett moo xam ne bu yëgsee na ngeen ma ca sant la yàlla waaye yëg nañ ci suñu xol ni sant la Sëriñ Tuubaa yàlla eh, danga koy door léegi murit la nu xewal mooy ca première safar ba 18 nu ànd ci sant la Sëriñ Tuubaa yàlla loolu la télévision moo faate moom bichri yëpp ba tàmbali première safar euh, jëmale dix safar fas yéene leen a defal ay plateau spécial ci dundu Seexul Xadiim akum mbindam tey nag euh, nu toog ci pàkk bu tedd fii ci jaayam di pàkkub Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul fii nu toog di ci biir jumaam yi nga xam ni moom la waxoon Sëriñ Mbay Saar mu baax ma ne ko Mbay Saar danaa bàkk bu bàkk jotee ndax sama jumaa ji fi jaaree ak ca Touba mooy sama bàkk télévision moo faa teewoon bi nag waajal fi ay plateau spécial ngir ànd ak yéen ci màggalu Cheikhul Khadim bi ngir ànd ak yéen ci dundal liggéeyu Cheikhul Khadim ba dara du ci ump loolu moo tax tey nu nekk fii ci njaaree kër gu mag ci pàkku albuqaatu mu barak ci biir jumaa Cheikhul Khadim ji eh, ma fekkoon nag ak ay jëmm yoo xam ne eh, yàgg naa wax ni du ay jëmm yu ñuy présenté ci télévision ma faate moom bichri ndax jaar nañ ci ci ay émission yoo xam ne mbooleen ku di jullit rek rafet lu nga ko eh, al oustaz Mor Thiam féete sama loxo ndeyjoor eh, du gan ci télé bi mu koy saare bu baax di ko dalal waaye nag ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Thiam di jàngkatu xasida fii ci njaaree moom itam bu gan ci télé bi donc koy siyaar di ko dalal xam naa lu njëkkante waxtu wi kon jox al ustaas mu nuyoo ak bokk yi koy seetaan ci télévision bu Mafatihul Bichri fii ci njaari wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci nga xam ne yéen ngi seetaan yéen ngi seetaan ci réew ñu ngi teg sunu nuyoo ci nuyoo Serigne Mourtada Guèye di ko fay di ko fay ndax ñu ngi nuyu yi waaye ñi ngi fay sëñ Mourtada Guèye ci nuyoo bi mu nuyu di nuyu tam sunu mag sunu xaalis sunu sëriñ te nu bokkaat jotaay bi ñu ko bokke woon ci weer yee ci ginnaaw ci bi ñuy waajal gàmmu di sëriñ Cheikh Mbacke Thiam ñu tudd ko sëriñ Cheikh Mbacke Diène Fall kon ñu ngi yamal foofu rek. ci kanam ba micro yi ci ñun ci ñun incha allah. jërëjëf al oustaz moo ngi lay delloo siyaar comme nuyoo yow itam di ñaan saa borom wéral cër yi eh, eh, li nga namal la géer sëriñ bi yépp nga yeggale ko sa sago xam naa mu yëkkatiwaat kàddu gi jox sëriñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma moom it mu nuyoo ak mbokku téléspectateur télévision ma fàcce moom Bichri ñu koy seetaan bismillaahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam di xaadimu rasuul salaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu ci jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen ziar baax ñaan ci yàlla sëñ Sëriñ Muxtaar yàlla fi auteur naa leen naa ci liggéey Seexul Xaadim mu egg la te ñu am ko ak moom saare sunu wasila Cheikh Moustapha Mbacké mu sëriñ Mbacké soxna Lo ñaan mu yàgg fi loolu te mu yàgg fi ak moom ma fàttali bis yi ñu ngi leen di siyaar baax li ñaan télévision bi fépp télévision El Yàlla fa xooxa ci barke xasida yi Cheikh Mourtada ngi lay siyaar baax ñaan suñu borom yàggal taxawaay bi loolu dëggal yaram bi yi na ci wàllu caméra bi di siyaare ni ko waxee léegi sama at sëñ Mor Thiam ñu koy siyaar baax di ñaan moom tam xéwal yi sëñ Cheikh Fatma di séddale yàlla ci am ba doyal te yàlla yàlla na ko bokk ci barke xasida yi jërëjëf sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ma waa mbégte di la delloo nuyoo te di la siyaar te ñaan saa defal la jàmm yow tam di siyaarewaat bu baax mbokku téléspectateur yépp di leen wax ni tey seen émission waajal màggal dafa jël lenn ci bindum Sëriñ Tuubaa di xasidaam boo xam ni moom sëriñ bi ci boppam moo ko bindoon muy xasid ak xasiiru fa seen cee def waxtaan waaye boole ko ak li waral màggal gi te li waral màggal gi bu nu ko waxee faw nag nu dem ci tukki bi kon xam naa ni al ustaas Mor dana ci yaatal bu baax baax waaye bala ñoo sore rek nu delloo wax sëriñ Cheikh kaddu gi mu yëkkati ay biiti asiiru euh, bëggale ko mbokk yi koy seetaan ci xasida gi muy waaj a waxtaane asiiru maa labraari hiina asiiru wasanani daani hunaata asiiru asiiru waaw ci waxtaan bi Serigne Mor kaddu gaa ko jërëjëf Serigne Mor Sada bi jërëjëf moom li ma waxoon ca gamoo rek laay waxaat dafa baax rek mu ma toog ci kanamam muy jàng xasida may jéem a teg waaye lu ma ci xam xam na ci lu ko raw xam na ci lu ko ëpp ndax noo bokk fu ñu daan jànge te moomu fa jiitu lu ma xam rek moom yow mu bari xamul waaye nag moom daa tànn di yëkkati xasida sëriñ bi lu jëm ca tekk ga ak prix nag mu bàyyee ko bokk yi waaye ni ma ko manee mu ko raw la man kon ñu ngi ko ñaanal bu ko ci barke xasida yi mu yëkkati maa ngi tam suñu cameraman bi noonu ma ko nuyoo di góor a jàlloo moom tam mu nangoo son ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi du yendal fanaan te loolu am na lu ci xam mbokk yi noonu Serigne Mourtala wax ñu ngi fii ci jumaay Serigne Touba ji nga xam ni jenn la ci àddina ndax li tax mu jenn ci àddina mooy jumaa ji dong lana mën a wax ni moo jënd barab bi moo joxe ndigal tam moo ko rëdd tam mu ñu tàmbale ko ci kanamam mu yàgg ci kanam mu julli fii ñaari julli yu wér joxe ndigal ñu tijj ko ku fi mës a nekk mu teg ko fii ba ñu nu ko noppee ñi ngi fii ci njaareel di barab yi nga xamante ne fi la ko Seydina Muhammad alayhi salaatu ganasi woo te moom mu waxal ko boppam ne ganasi na ma fi fukki fan ak juróom yàlla nee na ma bis bu ne dinaa ko defum at kon dinaa fi nekk fukki at ak juróom ñu ngi ci barab yi nga xamante ne fi la ko Seydina Jibril alayhi salaam fekkoon loolu bind na ko moom Cheikh Ahmadou Bamba waaye soxna yu baax yi nga xamante ni ci wanagam lañ nekkoon am na ci soxna su baax suñu wax soxna wàcc na yàlla yàlla doolu yërmande mos naa cee wax ak moom mu ni ma man mii la Cheikh Ahmadou Bamba wanoon si na jibi kon loolu doonul wér mbokk yi euh, sëñ Mourtala fi mu jël ren am na solo ndax sëñ Tuubaa kenn moxtu mënta waxtaani léppam ndax koo xamante ni loo wax wax ci moom dana am lu bari loo ci bàyyi te dafa mel ni am ndox rek fa nga ca yem rek nga mën a xam lëkkali mooy nga wut ci diggante bu ndaw boo waxtaanee ren bu déwénee nga waxtaan ak beneen yeneen jamono nga waxtaan beneen ngir mën a jëriñ waaye boo bëggee ba bës sa lépp dana ci am lu leer am ci lu leer ah, xasida gi nu bëgg a faram-fàcce sunu kemtalaay kàttan ndax Sëñ Tuubaa yi bind moom rek moo ko xam ak ku ko xamal waaye ñëpp dana jéem a leeral kaw biir gi nag ñu bokk moom ak keneen ku ko xamal xasida gi xasida asiru la tudd juróom fukki bayit la ak juróom gaañ di xasida goo nga xamante ni Sëñ Tuubaa da ci jàngale tawxiid tawxiid mooy ku ñu leen wax ni ku dul yàlla neel kooka yàlla rek ku ñu leen wax koy jëriñ nit mbaa koy lor ku dul yàlla nee ko yàlla rek a yàlla xasida gi Sëñ Tuubaa ci jàngale ni bu ëllëgee weer yi ko sëñ Moussa laa wax léegi weer ak at mi ak biddiw yi ak waxtu yi su ma taxawee fi kanamu suñ borom ñuy ñëw waxal sama waxal ma mel ne ku may plaider ci sama diggante sama bopp ñooy wax la ma nekk woon addina yiwu ma fa nekk woon fa nekk woon lu baax ma fa nekk woon loolu nag li ñu ci jàng si matulaa mooy kenn ku ci nekk boo dee def war ngaa bàyyi xel waxtu yi war ngaa bàyyi xel bis war ngaa bàyyi xel weer yi war ngaa bàyyi xel at yi ci ni boo lëggee bu sa bu sa làmmiñ waxut say tànk bis yi weer yi at mi waxtu yi dana nett suñ tubaab nag nee na boo liggéey ñoom bu ñu nettalee yàlla la ma fa nekk woon du ma waaw boo liggéey bu ñu nettalee li ma nekk woon addina di juróom-ñaar fukki at juróom yi mu dund mbaa juróom-ñaar fukki at ñeent yi mu dund su biddiw su weer yi ak bis yi ak at yi ak waxtu yi bu ñu nettalee li ma nekk woon ci sama dund du ma rus na kenn ku ne ci ñun nag war ngaa jéem ba bu ëllëgee bu bu bis wax na ci biir xasida gi ne euh, bi may jóg di dëgmal suñu borom te fas yéene koo jaarale ci njàngale yonent bi sama waa kër ma njëkk a gàllal ne ndekete rek te daan bul xañ bul sa waa kër sama waa kër ma njëkk a bi may jóg di dem samay bokk ma njëkk a gàllal ko bu ñu sax waaye boobu nag ñamaguñ ko te loo ñamagul doo xam lu mu sax ba tax ngay waaye bi ñu ñamee xam ne ñoom dong laa doon fëyal ñoom dong ma tax daan daan ñoom ñëpp mujj nañu ànd seen nee na moo tax dem naa ba sama kër dara nekk dëgg yoratuma dépense kër yoratuma lu ma jox sama njaboot samay doom yoratuma amatuma sàkket bu taxaw samay kër ràpp na samay samay mm, euh, sàkk fëgg na dara yoratuma ñu ne ko lu tax mu ne xanaa tagg yonent bi salaa sallam mi nga xam ne tagg ko moo di ceeb tagg ko mooy kafe tagg ko mooy àddina tagg ko loolu mi ngi li gën a yéeme ci xasida gi euh, bi muy dem la ko bind bi muy dem la ko bind maanaam trajectoire bu Sëñ mooy bi nga xamante ni bàyyi koo ci réew mi ngeen di dem ci liggéey bi la bind gi li gën a yéeme sëñ ci ci ci ci ci ci Sëñ si motulaa mooy nit dafa baaxoo dem defi la ngay def ba noppi door a bind la nga fa nga jaar defi la nga def ba noppi ne def nañ ma lii def nañ ma lii def naa lii def nañ ma lii Sëñ Tuubaa nag li gën ci moom mooy bi muy jóg di dem la bind fi mu war a jaar soo demee ci xasida ak ayesa yooyu mu tudd yëpp fu fu fu nu ko jaaralee te am na ci yoo nga xamante ni ban ko fa jaaralee gudd la ko bind nit kese tukki mu war la mu wóor na ne waxtu sàngam ngay egg waxtu sàngam ngay egg da gis nàngam ci yoon yi waxtu sàngam ngay gis Sëñ Tuubaa bi muy jóg. la ko boromam xamal ni lu la soog waxal lu la def bindal foo ko bëggee ak noo ko bëggee ni lay am mu daal jël xasida ga yees barab yi mu ci tudd yëpp moo xam jeewal la moo xam ndakaaru la moo xam ndar la moo xam Grand Bassam la moo xam Libreville la moo xam Dahomey la moo xam Mayumba la yëpp jaar te ba mu cay ba mu koy bind booba ak gucca ak gucca loolu nitu kese mënu di dem ci barab di wax ni dinaa fi gis diw ak diw waxtu sàngam laay waxtu sàngam laa ko war a am ñetti minute laa ko war a am laa ko ñeenti minute laa ko te bu ma duggee fii barab sàngam lañ ma bu ma fa barab sàngam loolu feeñ na ci ay mbir feeñ na ci xasida soo demee ci sëñ Moussa bi ñu ko waxee keroog la taalif xasida asiru ca Mawma ak la am sëriñ Basiru keroog ba muy taalif ba naan ndawal boroom ndar woo ko mbër mu muur ndawal boroom ndar woo ko mbër mu muur loolu dinaa ko leer ginnaaw ba keroog la taalif xasida ak asiiru ca moom ma am naam sëriñ Basiiru da gis ni ko déglu ndax bi mu nekkee ci yoonu wi di dem diggante Ndakaaru ak Conakry lañ ko ni soxna Fatou am na kat ci at moom yéen nag la sëriñ Basiiru nekk mu xam ne ni su su gënee àddina sama ginnaaw nañ ko tuddee Cheikh Mouhamadou Bachir su dee góor nag nañ ko tuddee Khadija keroog bi mu dee jigéen bu dee jigéen nañ ko tuddee Khadija bu dee góor nañ ko waxee loolu la maam Serigne te boobu sëñ Bassirou Mbacke génn la maam Cheikh Ibra Fall doom bi ñëw sëñ Bassirou Fall moom ak sëñ Bassirou Mbacke ci ñaareel ndax bi bi sëñ Tuubaa ne bu dee góor nañ ko tuddi góor ne doon waaw waaw soxna soosu kat loolu mu àndal su gënee àddina sama ginnaaw nañ ko tuddi Mouhamadou Rasulullah bu dee jigéen nañ ko tuddi Xadija yàlla dogal ci diggante boobu maam Cheikh Fall am doom muy góor mu tudd ko sëñ Basiru mu mu gëneegul àddina ñu laaj ko lu tax mu ni sëñ Tuubaa dane bu dee góor nañu tudd Mouhamadou Basiru sëñ Tuubaa lu mu njëkk rek loolu mu gënee àddina mu kon sëñ Basiru da ngay daal di xam ne kon li sëñ Tuubaa am ci géej gi ci ay at la am ci ay at ndax moom at mi fi jóge rek di 1895 la gënee at tey 1895 la sëñ Tuubaa dem ci géej gi ci atum dund dëppoo ak Gaye Sissine muy atum junni ak ñetti téeméer ko ñett kon mi ngi ko ci leeral ah, bi nga xamante ni nag la la tàmbali xas yi dëgg la ko borom ndar woowu xam ngeen ni maam Cerno Birahim daawul daaw ku ndax laata Sëñ Tuubaa di la yebaloon moom it ba mu demee xeexloo ko xulaloo ko defal nga xool bu ñu may doyee nga xamal leen ni leen walaay ba ñu maa ñëw ragalu maa ñëw waaye ndigal laa mu daal dem ba maam Thierno demee wax la muy wax jaar fa mu jaar ci juróom ndar daal dellu si waat ñu xamal ko ne ko yow yittoo wuñ la soxla wuñ la waaye sama lay soxla mu la ne ca moo ne ci maam nee na nag saa boo lay ñëw dëgg bi muy taalif xasida gii nag ba toll ci li sëñ Moussa Ka wax léegi keroog ba ko mbër mu muur boobu nag ne ko yàlla di dugal jot moo tax mu daal di ndar ñu jógee ndar daal ñëw Dakar daal di fi jóge daal dem ci liggéey géej waaye xasida asim ci réew mi la ko tàmbalee waaye ci géej gi la jeex waaye ci réew mi la ko tàmbalee ci géej gi la jeex ca jamono bi la muy xasida moo xamante ni ci làkku yaara muy làkku arab lañ leen gis ci ay ay ay ci wàllu tubaab yu wut yu nuróog ay verbe te bokkuñu ndax ñaari asiro ngi ci te bokkuñu nii tey asiru mahal abraari xiina asiru wa danna al ida anni hunaaka assur bu njëkk bi ak bu mujj bi ñoo bokk nañ leen bind te bokkuñ li ñu kii non la kii verbe la maanaam ni ma koy misaalee ci ci njàngalu tubaab mooy lii tur la lii jëf la tey pourtant ñoo bokk nañ leen teg assur bu njëkk bi dox lay firi maa ngi dox assur bu mujj bi prisonnier lay firi waaw koo xamante ne dañ laa tëj muy leeral boppam nag daanaka ni seen xel dal yéen ñi samay bokk na seen xel dal yéen ñi samay doom na seen xel dal yéen ñi samay taal na seen xel dal yéen ñi ne te alxuraan lu ñu wax innal abraara la fi naimin wa innal fujaara la fi jahim ñu baax ñi ñu baax ñi rek la ñu mën a ko ñu waaye Sëñ Tuubaa lu ñu jëfandikoo al maa ngi dox di ànd ak gaa ñu baax maa ngi dox di ànd ak nit yàlla yi maa ngi dox di ànd ak wàllu suñu borom maa ngi dox di ànd ak saxaaba yi maa ngi dox di ànd ak lawtaay te jamono ji may dox ko di ànd ak ñoom noonu ñoom defe nañu man prisonnier laa ci ñoom dañu maa takk mbaa dañu ma manoote mbaa damaa def loo nga xamante ne dañu may jiital lu leen neex def ma lu leen neex taxam lu leen neex wax ma fekk ma ko yooyu li nga yàlla jox na ma lam arab ba ganee àddina Arabie Saoudite boo ko moo tax mu ne man nu si xam ne nuuru lisaani wal kitaab na xidmati la daa amil kitaab nee na man euh, alxuraan ak sew alxuraan ak langue arabe man na ko yàlla lu ma ci nekk moo tax ci ay mbindam da ciy feeñ day feeñ ba da nga naan ah waaw suñ tubaab bi moom mbindam mu daan ginnaaw ba maa ngi dox ànd ak ñu baax ñi te jamono ji may dox di ànd ak ñu baax ñi te mooy saxaaba yi ndax nañ bàyyi xel ni lu mu waxoon ca ca ca ca ca euh, muxaddimaat yi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu fil bahri hiina adu mu ngoog rafiqi kitaabullahi wal mi ngi ci asiru sax mu ngoog damaa jum rafiqi kitaabullahi wal na bi waaw nee na ñu rek laa àndal ci li ma nekk ci géej gi lépp tey li gën a yéeme sëñ Mawla nee na sëñ Tuubaa bi may jóg di dem mbokk xamuma doom xamuma ab taalibe xamuma ku ñuul xamuma ku weex xamuma ndax booba bëgguma woon mu xam ndax dañu maa réeré waaye nee na ci liggéey bi nag ci la ñu mujj xam loolu la ñuy wax ko wax feeñ waaw ku wax feeñ di génn mbaa ku jëf feeñ ci sëñ Tuubaa la feeñ lastu ajuulu fi imaasi maxrifa nakiratan fa sirtu maxrifa nee na bi may jóg di dox bëgguma woon mu xam ma sàkkuma woon nu xam ma ndax dañu maa réeré woon waaye ci biir bi nag ci laa mujjee ne fàng mel ne weer maa mel ne bi kon loolu feeñ ci biir mu ne nag man rek ci bi may dox masiri mahal axyaari lillahi bi nabi wa maa li xayrillaahi awdu basir man maa ngi ànd ak tànnit yàlla tànnit tànnit nag mooy boo demee laaj suñ mbokki baykat yi da ngay gis ñuy jël gerte di tànn di tànn ba jël la ca gën daal ne la ñuy dencaat ngir ëllëg mooy la ñuy dencaat ngir weneen jiw waaye li ci gën a rafet la ñuy jaay ñoom ndax moo ci am njëriñ loolu mooy al moo tax mu ni masir mahal axyaari lillahi binnabi ñi yàlla du ñooñu ñoo sàkku du du Sëñ moo sàkku ànd ak ñoom waaye ñooñu ñoo sàkku ànd ak ñoom waaw nee na waaye jëmu mu mukk mukk ci keneen ku dul yàlla wa maa li xayrillaahi xamdu ma si daane daal loo mën a dégg mooy yasiru yasiru bi yel ges bu de sunu borom tabaaraka wa taala moom mel ne ku takk buum ci sama baat xëcc ma ne ma kaay fii ma jox la moo tax keneen ku ci man leneen waxal yàlla ku bëgg ci li ma yore waxal yàlla ndax yàlla ma xëcc ba fi moom jox ma leneen fi moom loolu moo tax nag ginnaaw ba yàllaa ma xëcc ba fi moom jox ma ne ci moom kon sukkuur yi bi aqlaal yi waxal bi wajusat yi li man kaana bil juudi wa sakuur léegi sama xel ma dootu sant ci ku dul moom sama yaram dootu sant ci ku moom sama xol dootu sant ci ku moom ndax mooy ki nga xamante ni la la jafe woon ñëpp yombalal na ma ko la ñëpp doon jox na ma ko la ñëpp doon làmb daj naa ko la ñëpp doon xool gis na kon ñu ñu yemali foofu ba ci kanam incha allah. Oustaz Mor leeral bi ngay indi suñu jàmbar ji Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul man damaa gis ci sa biir kàddu Oustaz Mor. kon ndeke jom ak fulla bu fit ci Ahmad la tàmbalee te ci moom rek la kon jërëjëf Thiam noo ngi ñëwaat léegi waaye foofu nga yëw ni fi la ñu delloo kàddu gi nag Serigne Cheikh Mbacke Gaynde moom it mu wéyale ko ci kanam ndax fag safar la wax la Mbacke yàlla foofu la suñ tubaab tolloon ci bi ñu bind xasida bi ñu woo ko ne ko wuyul borom ndax te boobu it amagul ndigal lu dem force rek maam Thierno dem ba ndigal wàcc mu door rek soo demee ñuy jàngale histoire boobu nag ku mel ne ki Serigne Moustapha Mbacké moom suñ Daam Abdourahmane nee na bi muy agsi la am ndigalul yàlla la ngir dem wuy ñu ndax ci say ndax booba dogal bi jot foofu li muy mooy suñ tubaab dañuy seytaan xuruurul wara seytaane bi nga xam ne yàq doomu muy métier war na nasaraan yi ci pexe ba ñu njort seen njort la ba defe ni ku jóg ba ñu njort ñoom defe ni ku jóg bi nga xamante ne daa waru bi nga xamante yàq ak yàqale ko tax a jóg na tubaab yi war na nasaraan yi ci seen ci pexem moom ko daal mbaa ku mën nañ ko wëlbati ca la mu nekkoon yóbbu ko ca la ñuy nekk waaye kooka du man man du ma ñooñu te ñooñu du man daan ne xanaa xamuñu ne man li rabbi iltifaat yi laa lahu taayiban lahu min a zambi wal aafaat yi wa huwa man yàlla rek rek rek ci lay geesu jëm yàlla rek lay dëgg ma yàlla rek lay xool yàlla rek lay lam tey bi yàlla suturaal may bokk ma ci ñiy def bàkkaar bayam gàcc bokk ma ci ñiy def musiba yëpp bay tiit

nit ki loo am am njëggalul yàlla ak yërmandeel loo set set ci bàkkaar foo toll wax ngay di tuub rek moo tax mu ne na ko tub min aybil tifaati li ghayrihi wa minni lahu ahdun alayya dabir su fekkee ni mu sama xol kenn ku dul yàlla day tuub naa ko man yàlla su dee jug gii ma jóg jëm ci borom da rek dama ko jàpp yàlla tuub naa ko man yàlla bu dee jug gii ma jóg it ne moom lay wuy ji tuub naa ko man yàlla waaye man ci laa dëgg man loolu moo tax jaayante na maa suñu borom te jaay na ko ci yonent bi salaa salaam te sama njaay ci moom du lam xam nga képp kuy jaay boo sa njaay du li ma jaayante yàlla te jaar na ko ci yonent bi salaa salaam rafet naa njort ci ni ci ni ci ni du lam dem na ba ci biir xasida gi muy leeral ni maa ngi ko doon wax léegi yi la ko fa wattu wal xal bu tayibul xariban la daa ah daa yi ubu basir nee na li tax man ku ma songu daan mooy damaa a jël sama lépp jox ñenn ñi nag dañuy jël seen lenn di ko sa lenn mu téye la sa lenn ko joxee sa lépp nag koo jox sa lépp nag moomatul dara waaye koo sa lenn tax moom ma daan te ma bëgg dinaa ko mooy sama mbir dama ma jox ko suñu borom moo xam bi ma nekkee ci mi nag moo xam ba ma nekkee ci man xamee moom ci réew mi laa nekkoon ak bitim réew laa nekkoon leeral na ci xasida gi ci ni ñu bari ndeysaan dañ maa yërëm ci bi ma nekkee ci liggéey bi ngeen defe ni tumuraanke bi te fi ne yóbbu ma bi ma nekkee ak ma fi ñëw ndax leeral dara wàññiku gii ak bi ma nekkee Mauritanie bi ma nekkee Gànnaar bi ma nekkee ci ndax man kenn du dox sama diggante suñu borom kenn du ma teree jaamu suñu borom tey fi ma bëgg a dem laay dem waxtu bi ma fa bëggee dem laa fay dem waxtu bi ma fa bëggee jóge laa fay dem sëñ ci am mbindam mu ne tubaab yi dañoo ndax man saa bëggee jóg ñu ñëw jël si ma te fu ma barab bi ma nekk fu ma fi noppee ba takk samay bagage ñaari simili ñett ñu ñëw ne ma nañ la fekk boobu noppi naa ko nag suñu borom nee na ma noppi waaye nee barab bi lu mu fi bëgg bëgg bëgg jóge te yàlla néewu sa waxtu des na nee na lu ma tax gun samay bagage lu ma tax gun samay sama sama leen kon ñoom defoon nañu man maa ñoo ma yóbbu waaye man maa leen di yóbbu moo tax nga dégg ci biir wax mu ni masir yi maxal axira waaw daaju baax nga laa nga xam nga ki am na baax ni kon limaale woo ñi ci des waaw limaale woo de man masir yi maxal axyaari lillaahi bindi bi moo tax wamaa lii li xayrillaahi xaw du masir ku xas ànd ak baax ñi nag doo wottee daaju baax mu ne ñoom laa àndal ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax du ma leen weccee du leen wottee dem na mi ci biir xasida bi muy leeral ci ni euh, sama kër maa ngi leeral léegi sama kër daanu na sama waa kër dem nañ ban bam mu mel ne dañ ko ne mbàkk lu war a loolu mu ne xanaa dëgmal bi ma dëgmal yeneen bi ne ko dam na rek ba tax bëggatuma doom bëggatuma kër bëggatuma soxna bëggatuma dara te fekk ni li ma leen bëggal ëllëg ci moom mii laa ko mën a laa ko bëgg a jël moo tax kii ñàkk jubluwaay fekk ni dang dangam yëpp bu noppee ceew la jëm a fi ah, ko te def waaw ah, njariñ loo fekkee nit ku baax waru ko def nit war naa mën a mën a ay sëtam ak sëtaatam te du ca lekk du ca naan waaye li am solo mooy bu sët yi lekkee wala ñu naan nañ xam ne lii du seen liggéey seen liggéeyu maam fi ne fu mbàkke mbàkke nekk na ko ni yoon wi defoo ci waaw bu mag baa bu ndaw bu góor bu jigéen yaa ngi tedd ci yoon yi waaye wóor na ni du yow sama am fu dara ne ba ko nee na nag loolu sama dal dal jooju ba toxoon ñëpp ba ma sama dal dal jooju ba taxoon samay sàkkat di daal sama dang-dang jooju ba taxoon samay xel yi daal nee na li ma bëggoon ñoo xam ne maa daan ne ah, bi nga xamante ni nekk naa ci géej gi nag di liggéey nekk ci maanaam jóge ci ci ci bi di def te loolu ma ngi ci ndigalu yàlla kuñ leen wax ni moom laa àndal ku dul ñii wax jóge ko ñu ne ko kanakan mu ni téeral yàlla bi moom kenn du ma taxal ñu ne ko akkan mu ni borom sunu borom tabaaraka taala xam nga ànd téere bi yàlla rek bi doy na waaye nee na dama ànd ak téere bi yàlla bi ànd ak borom téere bi yëmuma ci ànd ak ki yónent ki yónent ki yàlla yónni ci ñun te mooy Seyd sallallahu alayhi wa sallam yëmuma ci ànd ak saxaaba bi léegi ndax ku ànd ak ñii da nga keneen ndax ku ànd ak ñii da nga tiit ndax ku ànd ak ñii da ndax ku ànd ak ñii da nga def ni keneen mën na ci yow daal rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu fil bahri xiina adu yemul ca loolu bi taybatin wa inni lahu jaarun hunaaka yuusuf suñ tubaa nee na aji màkk solo nee na ab xol ndax xol lay yàlla du la limaale ci ñi dem màkk waaye mën naa ne Sénégal ndax yëf yi du aw yaram ab xol nee na bi ma nekkee ci liggéeyu géej gi mosumaa denc di seere yonent bi bis mu ne di dem ak dem naa ba mujj sax far dëkk ak moom wa indi la ma jaarul xunaaka yeesu damaa dem ba mujj bi dëkk ak moom saa bu ma xëyee ne ko ci loolu ko noppee gis kon moom musta day di mu tax mu ni mooy sama sëriñ te ab taalib daa war di jege sëriñ uxaati bu buubu wuxoon wasilatu samanan wa fii xal bi min nii ñu ngi daaw suuf ab sëriñ ab taalib du ko wër di jege ngir ab xolom di naat ab xolom di dund te nee na ba ma koy jegee boobu maa ngi ci géej li lay xamante kon espace amul solo ab sore li am solo li am solo rek mooy ab ànd sama bàyyi seen seen cheikh mi xam na ko daana ma wax ne ma ma war ma ne ko bàcc mu ni ma dañoo bokkutu nuru mën na ko bàyyi lu ci gën mu ni ma ànd gën ndax ànd nit mën naa ne kilifa rek nga ne lu yenn ci moom fanaan si ci yow lu fanaan ci yow boo xëyee nga ko nga xam ne du ñu umbal nee na loolu moo di ànd waaye ak nekk nag mën ngeen a bokk fanaan ci néeg fukki at doo ko xam ak du la xam kon da ngeen nekk nag Sëñ Tuubaa nag daa am na ngeen nekkutal moom danoo umpantiwul woon nit nag bu umpantiwut ak moromam noo ànd ak lu mu solo sooyee sooyee sooyee ci sax dem na ba ci biir xasida gi muy lu ñu leen mën a wax daal mooy suñu borom tabaaraka wa moom taxawu na suñu borom tabaaraka wa taala suñu borom tabaaraka xettali na ma waaye boole na ma ak yonent bi sallallahu alayhi muy sama wasila waaye defal na muy boo liggéey lu nit di jariñ ci man lay jaar bu jóge ci yonent man lay jaar doo dem ak ku mën a doon te nag nee na loolu ba mu wóor ko ndax xam nga buñ ne tey la asamaan si yàlla mu lem ko téye ci loxo càmmoñ garab yeeg lépp bañ wóor ni ku téye ñu ko gisati asamaan bu boobaa nag yàlla di jënd si kenn ku ci ne xam-xam nga jëm Sëñ Tuubaa nag nee bu boobaa lépp lu nit am ci lu baax yàlla yonent bi la ko jox yonent bi jox ci ngir bàq bi maa ngi lay ñaan nga xetti nun maa ngi lay bi nga xamante ne bu boobaa dem ba ci biir xasida gi mu naan waaw sama liggéey bii nag bu ma ko yemalee ci murid yi rek day mel ne kon na ma ko bëggee woon na mu ko fu ab jullit nekk ci àddina na yëpp bu wér a wér a wér a wér sama liggéey bii bu ci ñàkkee woon na ci amee bu ci tedd di woon na ci tedd bu ci texee di woon na ci texe waaye tam bu ci xamewul woon na ci xam fa bashir sawil islaami bi aajilan wa mu niiral bi al islaami anta mu fu ab jullit nekk ci àddina rek na yëpp liggéeyal naa ak lu mu sori bu ma xamee ak bu ma ko li la xamal ni sëñ Tuubaa ko ñàkk ci gànn sëñ Cheikh mooy kenn ku ne sa njaboot ngay bëgg loo am boo fi jógee ñu doon kenn ku ne sa njaboot ngay bëgg ñu tedd kenn ku ne sa njaboot ngay bëgg ñu tiim ñëpp sëñ Tuubaa nag bi ñu ko laajee ak njabootam dani njabootu yeneen ci bay sama njaboot fukki laaj ak juróom-ñett yi ko gouverneur général laajoon 1926 nga xam ne ci sa la dem gouverneur général dafa waaw bi du yoonu ko mu ne ko ñenn ñooy membre yi mu ne ko fépp fu ab jullit nekk rek ci membre yi mu ne ko ñu ko ñu ko njëkk a dundal ci affaire bi loolu si mu ne ko ah samay mag Cheikh Abdou Khadre Dieylaani Abou Hassane Sall Sall si Ahmad Tidiane samay mag ñëw ko samay sëriñ de samay mag rek may ndax ñoo ma njëkk ci yoon waaw mu ne ko wax fi ne ñu ko yor nag mu ne ko fu réew jullit ñor ne ña ko yor yor yor loo ciy dégg kon ndekete yoonu murit mooy lislaam yoonu murit mooy lislaam kon naa yem foofu ci macha allah Euh, al oustaz Mor mbég mi yaatu na tey ci télévision ma faatihul bichri mi yor caabi mbégte mi euh, ubbi na du mi nga bégal mbokk téléspectateur yépp ci safar émission bii di waajal màggal yëg nañu tey ni ñëw nga ndax li nga nu andil ci xasiid ak Sëriñ Bamba Xaadim Rasuul gii di asiiru mbooleem ku di jullit waxuma taalibe Sëriñ Tuubaa waaye mbooleem ku di jullit mën nga cee jëlee kon noo ngi lay sant di la gërëm kon xam naa ma jox Sëriñ Cheikh Mbacké moom itam mu andi nu tuuti ay baat rek tëje ko su ko defee nag mu jox mbokk téléspectateur yi di daye kon euh, Sëriñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma kaddu baa ngoog. xarajtu yawma sadi saamini asar yor ba la ngeen ci yéen ak ñu ci yéen lépp suñu borom dimbali nu noo ngi ñaanal seen borom yi bu baax suñu borom defal ko jàmm te defal na ko ci bàcc xasida yi yàlla nañ ko teewee at yu ci bàcc xasida yi bu baax di ko sant di ko gërëm sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma li mu nuy seedeel ci mbaax ci moom rek la ne ndax télévision bi mosu ko ba yëkkati dara teg ci waaye dafa wax ne li télé télévision yu nekk moom ci la nekk muy liggéeyal Cheikhul Khadim kon maa ngi koy tàmbalee ci turu directeur général Serigne Madiama Mbaye ba wàcc ci équipe bi yëpp yëkkati seenu cant ci yow di la ko jox di ñaan ci barkeb Serigne Touba barkeb xaside yi nga yëngu te sellal ko lool ku la xam xam la ci xaside yi waaye seede gi lenn rek la muy cell gi nga ko cell sell kon yàlla na saa borom defal tawfiix euh, wéral baat bi guddal fan wi euh, mu mel ni sax insha allahu rabbi noo ngi bëgg yeneen jotaay ak yow ndax fii ba màggal insha allah danañ ko yaatal lool télévision ma ko atamam du sore di sant bu baax di gërëm di ñaan suñu borom ci barkeb sa waaja euh, suñu jàmbaar jooju nga xam ne maa ngi yow ko bokk di sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed Gaynde ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam lool te yokk ko bu mu naalee liggéey sëriñ Mbacke Mohamed mu yeggaleeg sagoom ci barkeb sëriñ Cheikh Mbacke maamam Mbacke Cheikh Modou Moustapha xam naa ko al oustaz laay jox moom itam mu tàggoo ak mbokk yi ko doon seetaan. ok jërëjëf jëf yéen ñi doon seetaan ci réew mi ak bitim réew jërëjëf sëñ Mourtala yi jërëjëf sëñ Cheikh Mbacke Thiam ci xasida yi waaye tam sëriñ góor ci wàllu liggéey ñu ngi sant bu baax di gërëm ah, dégg nañ lool di ko sëñ Mourtala waxee moom wax dëgg yàlla gis nañu boole nañu ci liggéey saa bu événement religieux dikkee moo xam màggal moo xam gàmm balaa am sago rek mbaa mu am lu ko gënal daa bokk ak ñun jotaay loolu yëg nañ ko yéene ji nga am ci ñun yàlla sëriñ bi mott bi lu baax li ñu bëggal yàlla na ko yàlla defal ñun ñëpp ci barke Cheikh Ahmadou Bamba noonu ko ko waxee it nag moom nun bu nu ko su jëf yi mate woon doole ji mate ko dañuy samp tele bi dox ci sëriñ bi di wax sëriñ kon nag ginnaaw wërsëg yi matewu ko ñu nu xam ko su néew ku nu woo ngi def ci moom ndax li ma wax léegi ci li may doon euh, sëñ Tuubaa yi woon lépp nga xamante ni mën ngaa wàññi fanweeri at ak ñaar yoo xamante ni sëñ lekku ci naanu ci nelawu ci fanweeri at ak ñaar te soo jëlee soixante-quatorze ans mooy fanweer daanaka 32 euh, ans da cee des 42 ans lay doon nga mën a wàññi fanweeri at ak ñaar yoo xam ne Sëñ dafa doon dang nañu ngir nun kon nag bu ñu demee ba ñun fu ñuy fu sedd la ñuy lu neex la ñuy lekk fa la ñuy tëdd la ca des rek mooy wax baaxam ngi loolu waaye jërëjëf tam Mafaatihul Bichri ak bokk yi ñaar xam ñu ciy liggéey yëpp yal na yàlla lëkkale waaye nag di nuyu nag sama sëriñ soxna soxna soxna Anta Deme li nga xamante ni moo fi def lii bantu di fi def ay jotaay dina ko solo ndax man lu ma xam kër sëñ Modou Deme laa ko xamee maag sëñ Cheikh Mbacke mi di ñaanal sëñ Moussa Deme yàlla yokk yokk ko di ñaanal sëñ Modou Deme ak sëñ Abdourahmane ak njaboot yàlla loolu seen yërmande ak seen jëkkër di gërëm ñëpp al oustaz Mor Thiam yooyu tam noo ngi lay delloo cant boo xam ni ni ma ko waxee sëriñ Cheikh ñii léegi ci turu directeur général bu yegsi ci ka gën a tuuti ci liggéey bi wàcc ci si dënn bi ni nga ko waxee léegi rek ci njàppandal bi ndax li ma wax léegi ci seen Cheikh yéen ñaar mbooleem loo xamante ne ni télévision ma fàttali bis bi yittewoon na xaaru leen ci dara fu leen woo ngeen ñëw lu leen sant yëpp ngeen def kon maa ngi ñaan ci pàkk bii nu nekk daal di pàkku Cheikhul Khadim suñu borom defal la jàmm. liggéey jii ngay liggéey nag ñu liggéeyal Serigne Touba nekk ci rajo bi ñuy wax Ndefleng FM di fa liggéeyal yàlla di fa liggéeyal yonent bi di fa liggéeyal Serigne Touba maa ngi ñaan su borom gën laa dëgëral yow itam la ba saa soo xamee ne nii rek eh, sumb nga liggéeyal Cheikhul Khadim bi nga yeggale ko sa sago ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall sa waajo eh, mu mel ni nag mbokk téléspectateurs fii la muy yamandee gi yéen tey di waaj beneen jotaay waajal màggal ci télévision ma faatirom Bichri ndax noonu gis ngeen soxna Anta dem jotaayu am solo yi mu ci indi Sëriñ Murtala Gay jéeru Xaadimu Rasuul gis ngeen jotaay bi mu indi tey mu mel ne noonu rek lañ ko fas yéenee jàppoo ba keroog lu yegg ci bisub Seexul Xadiim bi mu waxoon ne nañ ko sant la yàlla nu ànd nag wuti Tuubaa bëggunu dara rëcc leen ci màggal gi ndax lu leen di bëggal ci Cheikhul Khadim rek moo na fi bàyyi télévision mu Fatihul Bichri euh, noo ngi siyaare bu baax mbokk téléspectateur yépp di ñaanal Serigne Gora Diallo mi nu ko àndaloon te muy jàmbaar loolu ci liggéey bi suñu mor wax na ko léegi euh, suñu borom defal ko jàmm moom itamit guddal aw fanam ndax euh, moom it la taalif ba la taalifkat ba wax ne seen été ngi teew waaye waroon na boole caméraman yi ndax noonu it nelawul kon noonu it yàlla na yàlla defal jàmm ci liggéeyu Cheikhul Khadim bii nga xam ne moom la ñu sumb euh, di leen jox di daje nag incha allah rabbi ci seen beneen émission beneen numéro waajal màggal nu waxtaane waat geneen xasida waaye waxtaane it dundu Cheikhul Khadim ci ñun ak lu nu ko war a faye jërëjëf mbokk téléspectateurs yi euh, euh, am nañu mbégte